wa ma taqaddama min dambika wa ma taax ni nga koy xàmme mooy gàmmu Tiwaawan bu cotee rëg-rëg ji rëg-rëg ji ñuy mën a jël train jël train ñuy jël ay bus jël ay bus ñiy jël transport commun yi njaga njaay yi jël njaga njaay ak kuma njaay waaw ñuy jël voiture individuelle jël ay voiture individuelle mais yooyu ñuy tax ci pare-brise bi auto euh, laissez-passer yi laissez-passer yi bokkuñu laissez-passer ordinaire bi bokkul ak bu spécial bi ah bu spécial bi bokkul ak bu liaison bi parce que liaison bi ñoo wax di dem di dikk di toppatoo li li li yor affaire gan ni am na ñuy yor yooyu ci seen digganteeg seen borom balaa naa xew moo tax cortège yooyu bu ñu jógee Dakar jëm Tiwaawan te fépp bloqué ñu ubbi sens interdit bi ñu jaar fa ku leen di arrêté parce que police ak gendarme yi leen war a arrêté ñoo jiitu ci cortège bi waaw al ah, noonu la yëf yi deme nag changement yeeg particularité yeeg exception yi moo tax erreur la ñu nangu ay décideurs politiques am ay décideurs économique am te ay décideurs ci sur le plan mystique du am pourquoi bu sëriñ jëlee position sur le plan politique ñu ni sëriñ yi nañu toog ci seen der xanaa bokkuñu ci décideurs yi te kon ñetti cër la mulkiya milkiya ak malakutiya ñu yore mulkiya am nekk nañu ay décideur ñi nekk ay mul milkiya bi am nañu ay décideur malakutiya bi xanaa ñoo war a gën am ay décideur bi ci des mooy sañ nañu cee takk ñeenti jabar parce que waxoon naa leen fii ni leen politique mooy goro mystique kon nag fan ki xuma taaba min an nisa mathna wa thulatha wa rubaa boo takkee aawa ci politik marché wul wutil ñaareel nga takk ñaareel marché wul wutil ñetteel nga takk ñetteel marché wul wutil ñeenteel bu ñeent yëmmatee te gisoo loo xam na waaw ah, kay beral sa daara noonu la demee noonu tax wayam boobu rek waxuma góor gi de <laughs> man naa njaga mbay ok dañ koy reeme lu am solo la boobu muy ak noonu mu koy nan yóbbaale ma ba fa jëm waaw c'est très important ku mënula dem wutal ku la yóbbu pourquoi parce que ihdina siratal mustaqim boobu ñooñu ciy dugg dañ di ñetti catégorie yu bokkul fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'in man yamshi ala batnihi mooy ñi nga xam ni handicapé lañ ci ci biir siratal mustaqim ay handicapé lañu mënuñu yóbbu seen bopp fokk am ñu leen jël en charge wa minhum man yamshi ala rijlayni am na ñu nga xam ni du ñu handicapé mais bu ñu demee te sharia jëlu leen en charge du ñu yegg te sharia deux la li sharia yi rëy rëy rëy rëy deux la gaawul trop deux sax da ngay xam ban deux parce que trottinette yaa ngi ci vélo yaa ngi ci ah cyclomoteur yaa ngi ci ah ba ngay dem ci scooter yu mag yi sans dépend yëpp ay deux roues lañu mais charia li tax mu nekk deux roues mooy charia yëpp am rek naxëya la yàlla ni def leen nga def wala mu ne bàyyi leen nga bàyyi moo tax mu nekk deux roues wu ko ay jeex na bu ko defee nag ñi nga xam ni ak quatre roues la yor mooy ñiy boole sharia ak xaqiqa waaw ñaari roues yi ci ñoom taxaw taxawaayu arsh yeneen ñaari roues yi ci des taxaw taxawaayu kursi waxin la parce que yeneen ñeent ya ca des ma nga ca kaw di xaar ñeent rek la ci yàlla wàcc fii ñaari tànk la ñu abal ak ñaari tànk yi ñu kursi yi abal mooy doxal li ci àdduna bi yëpp yeneen ñeent yaa nga des ci kaw mooy wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma id thamaniya jeex na muy tax cortège yooyu bu ñuy jàll ne ni ngay gis ci mbedd mi bu gàmmu jotee yenn cortège yi di jar ngay gis nit ñu gis benn cortège ak tëb yooxu kontaan googu ñuy kontaan xëy na xam lu tax ñu kontaan ndax du cortège yëpp a leen di kontaan loo loolooy wal xuru min bayni nawafidi fi lxima mutafarrijatun fii ka wildaani ngay romb bis yi am ñuy sëpp ci fenêtre bis yi di yuuxu ah que góor gu tedd gaay romb waaw waaw waaw waxin la loolu waxin la ba tax na bi am solo ci affaire bi moo di assurance yi ngay am puisque kenn du am pouvoir mystique ba nga am pouvoir politik te ñeenti ahd du taxaw ci sa kanam yàlla foog mu jox la ñeenti ahd soog a nangu ñu décrocher pouvoir mystique bi walla pouvoir politique jox la ko ahd bu jëkk bi avertissement la alam ahad ilaykum ya bani adam an taabudu cheytaan sunu borom nee nit est-ce que avertiruma la à pour wax la ni la cheytaane sa adversaire la waaw bu ñaareel bi mooy ahdi bi nga xam ni ci respect des instructions la dellu wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya waaw bu ñetteel bi mooy ahd bi nga xam ni dafa dellu ci accomplir devoir bi nga xam ni li nga yenu li mu war jariñ ci jaam yi nga fexe mu jariñ ko boo ko accomplirul yàlla boole la ci alzalimin te la wala yanaalu ahdi alzalimin bu ñeenteel bi nag moo di nga man assurer tout risque ci ñi nga xam ni ñooy war a topp ci sa gannaaw waaw te moo di ñi am chafaa mën a ràmm ñu ñu war ràmm chafaa bi duñ ko may seen bopp te moo di sunu borom illa man ittaxada inda arrahmani ahdan ba tax na kon ñeent yooyu moo ciy nekk bu jëkk bi mooy avertissement bi bul def seytaane mu nekk sa allié bu ñaareel bi mooy respect instruction yi te mooy bi mu waxee ak aadama ni ko joxoon naa la instruction yi te respecté wuloo ko bu ñetteel bi mooy accomplir devoir yi ah ndax boo ko accompliree dangay am tort te laa yenaalu ahdi zaalimin bu ñetteel bi nag mooy wàllu shafaa shafaa doo xeexee am ko te joxuñu la euh, légitimité waaw looluy tax kon juróomi assurance yooyu Maodo tudd ci tey Taysiir te ñu di ko ñaane ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mooy salli salaatan tunajjina biha abadan jamia al ahwali wal afaati allahu salli salaatan biha taqdi lana abadan jamia xaajatina yallahu yallahu salli salaatan biha rabbi tutahiruna min jumlati sayyiaati rabbi yallahu salli salaatan biha rabbi tarfauna ala min addarajaati rabbi yallahu ak salli salaatan biha rabbi tuballiguna ajalla aqsa min alxayaat yàlla juróomi garanti yooyu boo bokkee ci cortège yu bi assurance tout risque boobu dañ la koy offrir waaw looloo tax comme wax na la julli bi ak audit bi muy def wax la koor gi itam ak ngéem a nuru gi ngay nuroo borom bi waaye ci bëccëg bi tax doo lekk doo naan amee programme mu malaayika yi waaye bu guddee mu ne la nga dog ndax yàlla gi ci yow jeex ne nit ji dugg waaw moo tax gis nga wàllu aj aj xam nga bu ngeen seetloo ci waxtaan yuy paase woon te ma di leen wax alastu bi rabbikum mooy fële ca bayal ba man leen alastu bi rabbikum bi ko yàlla di wax ak jaam yi booba nekk gu ñu jëmm te ma di leen expliquer li leen alastu bi rabbikum gi yaa ngi koy mën a dégg ci ndey boobu yore liiram te liir bi xàmmeegul te mu di ko tooj naan ko waa muy muy kaññi di ree te li muy ree sax xamu ko ndax li li koy ci xamul lan la fitra rek moo koy dimbale pour muy muy ree noonu mais xàmmeegul li koy def nii lan la loolu mooy alestu bi rabbikum ci sunu borom ba mu koy def boobu ruux yi ay ay ay ay ay liir lañu waaw mu di leen def rek ni alastu bi rabbikum pour ñu xàmmee ko gis nga aj gi aussi mooy ruux yooyu moo waxoon alastu bi rabbikum nen yooyu bu ñu màggee tuuti ba nekk xale di dàqante boroom kër bu toog ci këram gis ay doomam ñuy dàqante di sànnante ay xeer ànd ak seeni moroom léeg-léeg ñu def cercle léeg-léeg ñu xëppante tuuti suuf mooy aj gi sunu borom itam ñoo ñu ma waxoon alastu bi rabbikum bu ñu demee ba màgg tuuti ñëw ca këram nu mu toog rek di leen xool mooy tawaaf bi comme xale yooyu di wër di dàqante waaw mooy tawaaf bi waaw noonu ñuy sànnantee ne mooy sànni bi ñuy sànni jamre yi waaw Safa ak Marwa bi mooy ba ka ñu rawante waay ka ku nekk waaw waaw mooy Safa ak Marwa bi bu ko defee nag bu ñu demee ba sonn mu ne waay sonn ngeen nag xaaral ma defal leen barbecue organiser leen barbecue nag ndeysaan sonn ngeen mooy tabaski ji moo tax ku fekkewul invitation ba nag mu ni la jàpp ci jàpp ci fa nga ne loo tax kenn ku ne di yeew xala ndax bu bis ba jotee boo demul ca invitation ba yow def sa invitation bopp pour jàppale ko yàlla waaw parce badrul mutammam wal hubbi li sayyidina muhammad نور الهدى بدر وسلم حب لسيدنا رسول الله نور الهدى بدر متمم من حب